jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg seen site d'information bi di www.banlieueinfo.com ak seen télévision en ligne bi la télé de la banlieue BTV banlieue info TV. tey ñu ñëw ak yéen di leen xamle ki nga xam ne mooy faux médecin bi di Amadou Samba. Amadou Samba membre la ci convention des cadres républicains bi nga xam ni jëruñu dénk wàllu wérgu yaram Abdoulaye Diouf Sarr moo ko jiite. waaye ci atum 2015 su sukkandikoo ci ñi nga xam ni moy l'enquête bi le moom commencé fajam te amul benn lijaasa demul ci wàllum wérgu yaram wala bokk ci wàllum médecine suñ sukkandikoo ci ñi nga xam ne ba tey ñooy waa libération ñi nga xam le ni Amadou Samba donte la jaar na faculté de médecine bu Dakar mais nag mu sa jeexal am njàngam moom sax dañ ko dàqoon ci boobu la faculté ci la jógee foofu jaar ci institut supérieur de management ISM ñaari cours dong la fa def daal di daw jógee ci boobu la l'école naka noonu ci la dem daal di defar national de médecine boo xam ne mi ngi ko defar ci benn cyber ci naka noonu ci la dem commencé di faj ci centre bu Colobane daal di dem commencé itam di falsifier maanaam maanaam di labac ay cachet ci ay yoo xam ne jaar na fa ci année yu bari Amadou Samba jot naa saytu a aji tawat di xool seen yaram tey di leen jox ay médicament maanaam ay garab ngir ñu mën a faju waaye tamit ay diabétique yu bari maanaam ñoo xam ne dañoo amee feebar bii di feebaru nag naka noonu ñoo ñi nga xam ne amoon neen feebaru diabète boobu saa si tembe ñi ngi ci ay danger de mort maanaam seen bakkan soo moytuwul dinañ ko ñàkk waaye nag ki nga xam ne mooy Amadou Samba ba tey comme ni mu nekkee ci cercle des cadres républicains bi nga xam ni Abdoulaye Diouf Sarr moo ko jiite moom dem na fu weesu foofu Amadou Samba bokk na ci panel de haut niveau bi nga xam ni cadre bokk na ci panel de haut niveau bi nga xam ni cadre des républicains bi nga xam ni chef de l'état sax moo ko doon présider sa kin fat place moom teewe na ko ma en janvier 2020 Amadou Samba bokkoon na ci bureau économique bu cabinet du président Recep Tayyip Erdogan bi nga xam ni ñëwoon na ci sunum réew ci ab visite bi mu fi doon amal ci janvier bi tamit Amadou Samba def na yenn ci ay plateau télé yi ci mel ni RDV doon wax jëm ci wàllum wér gu yaram ak ci li nga xam ne mooy hémodialyse ak ñàkkum médicament yi nga xam ni ñu ngi ko doon nemmeeku ci biir réew mi waaye tamit ci weer janvier bi passé bokkoon na ci réunion des cadres bi nga xam ni Abdoulaye Diouf Sarr moo ko doon jiitee ak kii di Mor Ngom ci mars atum 2020 faux médecin bii di Amadou Samba bokkoon na ci benn tournée bi nga xam ni Fondation Servir le Sénégal bu première dame Marième Faye Sall moo ko doon amal ci projet bii di Rama bi nga xam ne lancé nañ ko décembre atum 2018 ngir jàppale ñi nga xam ni seen ay at dafa bari maanaam les personnes âgées ki nga xam ne mooy docteur Amadou Samba nekkoon nga koo xam ni ku jige la Abdoulaye ku jige Abdoulaye Diouf saar la ndax foo ko gis gis Abdoulaye Diouf Sarr si wetam waaye lu gën a doy waar si wax ji mooy kii di Amadou Samba jotoon naa testé ñenn ñi nga xam ne dañ doon fësal yenn ci ay symptômes yu Covid 19 maanaam feer bi di coronavirus mu ni leen ñooñee amuñu ko. lii mooy kaw teef bi nga xam ne nemeeku nan ko ci mbiru Amadou Samba ci jamono yi nga xam ne ñu ngi wax waxi coronavirus. mu demoon sàcc en têtu institut Pasteur bu Dakar doon ko fësal ci yenn résultats yi nga xam ni mu ko doon génnee ci test yi nga xam ne moom ci boppam moo ko doon def. waaye tamit doon na liggéey ak ay société yu mag fii ci réewum Sénégal doon leen testeel emploi yi nga xam ne ñoo fa doon liggéeyee ci yooyu bërëb. waaye tey gii ñi mooy takk der yi jàpp nañ ko dem ci këram fekk fa yenn jumtukaay yi nga xam ne mu ngi ko doon jëfandikoo ngir mën a faj ay patient am waaye tamit ay poche de sang ay bulletin d'analyse ak yenn ci ay thermoflash waaye tamit ay gel alcolique ngir mën a li amal liggéeyam ci boobule bërëb lii mooy kawteef yi nga xam ni moo lëmbee ñu ngi wax coronavirus ci wàllum wér-gu-yaramu Sénégal mu nekk lu doy waar loo xam ni jaaxal na ku ne fii ci sunum réew